mooy emprisonnement Ousmane Sonko ak la dissolution de son parti ñaari événement yoo xam ne tegaloo na lool ndax am nga ci mbetteel. bon oh, xam nga du ma mën ne bettuma du ma mën ne bett en réalité que boo xoolee diggante deux mille vingt et un damay wax Sénégal daa mel ne daa amoon ñaari code pénal. Mhm. code pénal Ousmane Sénégal yi ci des. ndax wax dëgg yàlla jàpp na ne ko waree jàpp yàgg na lool bi ñu waree dissoudre Pastef yàgg na lool kon bu amee ndax bett na ma bett ma du nekk problème bi li ma nekk mooy bég naa ci. da nga ci kontaan absolument lu dal sa moroomu jullit. sa moroomu sénégalais non non du affaire jullit affaire sénégalais la citoyen citoyen boo xam ne ci ay fenam jur na lu war a tuut lu mu tuut tuuti fanweeri nit faatu ci diggante deux mille vingt et un ak léegi citoyen boo xam ne ci ay fenam ay milliards état bi yàqu na ci citoyen boo xam ne ci ay fenam ay milliards doomu sénégalais yàqu na ay téeméeri sénégalais tey ji ñu ngi nekk en chômage. citoyen ba bu ñu ko jàppee képp ku gëm république ak démocratie da nga ci war a dégg ndax bu amul woon kon kon boobaa nag c'est le Sénégal qui s'effondre mhm. c'est la république qui s'effondre c'est l'État qui s'effondre